asalaamaaleykum àdduna teewati nañ ci émission bu mag bi nga xam ne mooy li ci àdduna saa su ne ñuy xool seen bëgg-bëgg yéen askan wi di ko waxtaanee di nuyu askanu Sénégal gépp rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci hôpital yi. nee naa leen képp ku ci am malaat di ko seeti ngir yàlla rek loo am yóbbul ndax mën ngaa jënd séritie bu vingt cinq mille dem ka nekk ak malade baa koy lekk fekk fa ordonnance bu lu ci nit man rek na nga ci jàpp te yàlla tax rek. booy dem ci hôpital yi nga bañ a jël li nga am lépp yóbbu ko dem fekk fa ordonnance noonu laay duggee ci biir prison yi ñaanal ñi nga xam ne ñoo ngi ci prison yàlla nañ delluwaat seen kër yàlla bu ñu def loo xam ne dañ koy defaat mu delluwaat leen fa mbokk yi maa ngi leen di ziar di nuyu suma yaay di ko ñaanal jàmm muy ajaratu Bella di nit ku baax borom kees borom yaraax maa ngi lay ziar. baax. asalaamaaleykum wa Euh, di am mbégte ak kontaante ñëw ci émission bii nga xamante ni bii muy émission boo xamante ni bii àdduna wërngal këpp yëpp ñu ngi koy seetaan ginnaaw bu ñu santee yàlla nag julli ci sangu sangu yi Seydina Muhammad ñu ngi nuyu mbooleem koo xamante ni rek yaa ngi ci biir réew ak bitim réew di am mbégte di wax ni daal ñun daal ñu ngi fii fas yéene ànd ak Abdou Aziz ci émission bi nga xamante ni moom la àdduna yëpp di xaar loolu laa lay tafayee. bu ma neexee ne madame le maire bu ma neexee ne ñang baal ne bàjjan <laughs> <laughs> yal yàlla nangu ziar Abdou Aziz maa ngi lay ziar bu baax di la delloo sa di la jox sa yéeguwaay mm-hmm. di nuyu ñëpp waaw maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah wa rahmatullah jërëjëf bàjjan mm-hmm. tey nag ma bëgg ñu waxtaan ci waxtaanu am solo woo xam ne àdduna wërngal këpp tey dañu taxaw seetlu ci jigéen ñi nga xam ne ñoo ngi sëy ci biir néeg néegu sëy am yu bari yu nekk ci biir néegu sëy ñi naan démb ñi naan tey olof di faral di wax naan fa ndox doon taa boo demee fekk fa tepp tepp ba léegi ñu gis ni jamono ji fi mu toll secret yi nekk ci biir néegu sëy amatul néegu sëy nag dafa am ay secret secret gi mooy muñ secret mooy du lu la metti rek nga génne ko tey ajaratu ma bëgg ñu waxtaan ci loolu lan mooy secret néegu sëy euh, Abdou Aziz maa lay ziar bu baax Euh, di la wax rek ni la euh, secret néegu sëy moom mooy muñ mooy muñ ak sutura surtout sutura waaw nañu jël sutura euh, def ko ci néegu sëy yi hmm. ndax sutura suñu maam yi noonu lañ doon sëyee suñu waajur yi noonu lañ doon sëyee suñu maam yi noonu lañ doon sëyee ñu gis ni léegi xale yi amatuñu secret néegu sëy lu la metti nga wili paane ko génne ko sa loolu yoon ah loolu moom loolu moom ci yar bi damay dama naan loolu ci yar bi lay doon parce que nit dinañ la yare noo xamante ni sa néegu sëy lu mu metti metti metti di nga fa toog ak sa ngor di nga fa toog muñ moo tax waajur nee nañ waajur dafa foor ci dafa foor ci ci doomam mhm. parce que dina def ci yow jikko joo xamante ni mhm. eh, am na loo xamante ni jomm nga ko mhm. comme tey ji yow boo xalaat jomm day mel ni loo ragal waaw loo jomm sorewul ak loo ragal parce que yow bu deente ni yow sa waajur bu jigéen xool nga ci moom rek yow fu ñu la teg di fa toog fu ñu la teg di nga fa toog boroom yaraax mu mel ni dañu mhm. seetli ne jigéen ñi mhm. léegi génn weer seen bopp ci mhm. internet bi génn weer seen bopp ci pénc mi loo xam ne dañ ko doon waxtaane ci biir néeg di ko waxtaane ci ruq yu néeg famille bi di ko waxtaane léegi dañuy jékki-jékki gis ko ci pénc mi waaw Abdou Aziz maa ngi sant bu baax a baax a baax di am mbégte lool comme ci li nga xamante ne bii moom la ñu dugg tey fa yéene ko waxtaanee muy suture say biiru néeg mm-hmm. mu nekk loo xamante ne bii balaa ma ciy dugg rek euh, damay nuyu rek tuuti rek honorable député monsieur le maire Babacar Mbeng nga xam ne moom mooy maire commune Hann Bel-Air def ci loxoom mm-hmm. mu seddee la ko askanam yëpp mm-hmm. di ziar waa Yaraax bu baax a baax a baax euh, da nga dugg ci thème bu am solo muy sutura ci biir néegu sëy sutura biir néegu sëy Euh, dafa am nangu ak liggéey. nangu ak liggéey luy nangu ak liggéey. nangu liggéey nag bokkul dangay gis ku yendoo fóot yendoo bale yendoo raxas yendoo togg ca ma ko war a wax bu ngoon jotee nga banku ni jalaal liggéey nga waaye nangu woo. unu ko teg. loolu mooy indi problème bi fi ñu teg loolu nag mooy nangu dafa mel ni diggante xaj ak muus muus fu mu juree doom. xale yi jël ci saaku sànni ji xaj fu mu jure doom xale yi ñëw seddoo ñiy jëndi meew ñiy mbaar ñiy uuf nangoo ko yóbbe romb la nag ci naaj wu tàng jër dugg ci oto kat kat tallal làmmañ bi di la wan ni man damaa nangu kon jabar buur doom jaam jabar jaam doom buur foofu la sutura si nekk doom jaam jabar jaam doom buur sutura nag biir sëy dafa nekk loo xamante ni bii boo nanguwul doo am sutura ki nangu rek moo mën a am sutura biir néegu sëy waaye bu leen liggéey rek tax jotee te doo nangu doo am sutura biiru sëy biiru sëy sutura moo ko ëmb ak nangu boo nangoo lépp loo xamante ni bii waxtaane ko ci biir néegu sëy muy sa borom kër boo leen xëyee kenn du ko naanee dox waaye bu fekkee ni nangu woo nag lépp loo xamante ni a ngeen ko ci biir néegu sëy ak sa borom këy boo leen xëyee ñëpp jot ci sag ñàkk nangu moo la ko yóbbee. ñàkk nangu ajaratu mu mel ni sag ñàkk nangu góor ñi chaque jour su coow yi toll masaana tollu fii wax ji bari ci ay histoire yoo xam ni ñu gis benn xale boo xam ni fan yi dafay sëy boroom këram. daan seeg moom nit ñi neneen bat buzz la nit ñi neneen am na ñu ne lu ko metti la génne mm. Issa war na weer jëkkëram te amaana ci showbiz bi lañ xamante du isa lu la metti rek war nga koo waxtaanee ci biti carrément parce que góor ñaa ngi leen di jam jam baaraam di loon ko di ne fi mu ni jigéen ñi amatuñ sutura. Euh, Abdou Aziz euh, loolu boo ko gisee ma ciy profité di nuyu sama borom kër moom mi ma bàyyi ma ñëw. Mm-hmm. ma di ko nuyu Zakaria Cissé maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar di nuyu sa euh, di nuyu sa famille yëpp. Ba mm-hmm. Cissé ñoom maam booy bàyyiwuma kenn mat leen Euh, ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu ku lim doo juum. Mhm. waaye da nga dul matal. Mhm. léegi nag may wax ci thème bi ma ni moo loolu yëpp même nuyoo bi sax ci sëy bi la bokk ndaxte ñu ngi waxtaanee waxtaanu néegu néegu sëy li ma ci wax mooy euh, sutura euh, génn weer sa jëkkër moom mooy weer sa bopp. dañu gis ngeen bari loo koy def. ngeen. <laughs> jigéen ñi bu ñu nee jigéen rek. ku tudd mhm. jigéen rek tudd nga jigéen ñépp voilà tey voilà mais du jigéen ñëpp. du jigéen ñëpp am na du jigéen ñëpp. am na ñoo xamante ne yar nañ leen yar goo xamante ne lu ñu dund seen biiru néegu sëy dinañ ko deewaale. dinañ ko dee dinañ ko deewaale ba nga xamante ni kenn du ko yëg parce que weer sa jëkkër mooy weer sa bopp. parce que koo xamante ni euh, yéen sëy yàlla moo ko bind ca aras yàlla mooy boole ay jaam yàlla moo leen boole. gannaaw yàlla moo leen boole nag kon ku nekk na nga suturaal sa morom waaw man de euh, ci sama xalaat bu gàtt mooy mm, jigéen ñi nañu yokk muñ te dooli sutura surtout sutura sutura mooy lépp ci la lépp xaj parce que tey jii ki nga weer bu subaa naka nga koy xoolaatee waaw naka naka nga koy xoolaatee moo tax daal euh, nañu sàmmaat jikko yi xoolaat jikko yi ah te gën a doole sutura suñu borom kër yi ndax nag ñoom la ñu yàlla booleel. ñoom la ñu yàlla booleel. Mhm. mu mel ni saa su ne rek dañuy gis góor ñi ku ci takk jabar da ngay gis ku la muñal. muñal mhm. lu ne yéen fu ñu waxee ngeen dóor xaste maanaam ba pare ñime weer weer jigéen ñu gis góor ñu bari di ko def. Mhm. fitnaal jigéen daf leen yomb. waaw loolu soo gisee. góor guy fitnaal jigéen góor googu góor gu matadi la. góor gu matadi. matadi la. ku xool ni man bi may ñëw jamono jigéen a ma indi muy sama ndey ku xool ni bis bi ñu lay may soxna mag ñi di xelal ni na nga sol boloog rek dal doxantu yàkkamti lu dul mu ñëw kon bis boobu boo ko xoolee war ngaa mën a muñal ki nga nekkal. jigéen nag boo ko jëlee takk ko indi ko ci biir kër gi def ci moom ay millions xëy sa loxo dal ci lex ba amoo lu la neex lu ci bari lu ci bari. man nga ko def mais du am lu la neex. am neex waaye li indi ñaare jàppante góor ak jigéen xeebug nobel xeebug nobel day indi jàppante. ma defe ne koo takk rek nob nga ko bëgg nga ko. waaw xam nga nit ki di ko takk. ci bon gré mal gré ndax dégg nga bi ba tàyyi léeg-léeg coow am ci biir histoire u sëy yaa ma toppoon topp ma la muy ko góor ki wala ko muy ko jigéen ki dafa mel ne ñu góor ñi li ñuy def loolu moom waaw loolu nag bu amee xeebug nobel lay jur nit ki boo xeebeeg nobelam ci moom sa jubóog moom di yomb pour ngeen di jàppante toujours day yomb kon nit warut a xeeb nobel muy ko góor muy ko jigéen boo xeebee nobel rek wuñ li nga sutura sa borom kër wala sa soxna boo xeebee nobel xeeb nga sa borom kër wala sa soxna boo xeebee nobel xeeb nga dépasse te dépasse ku ko xeeb su weer sa jëkkër weer nag buñ ko waxee fañ koy def baaxul ndax ci tàng jër lañ koy weer kon li ñuy def ca naaj bu tàng ba ngir mu waw fa mu jaar ba mu këram muy wow dana metti de Abdou Aziz mm. kon sutura am na solo ci biir néegu sëy nañuy jàppante te bëggante te fonkante nit ki boo ko jëlee kër ndeyam ak baayam indi ko ci sa biir kër am na loo xamante ni bii war nga koo mën a sédd ndax dama wax ni saa yoo déggee alxayri jàpp nañ la de. Hmm? waaw waaw. boo déggee alxayri boo rek jàpp nañ la. buñ la muuree jël si nañ la buñ la yóbboo nga sëyi tëj nañ la kaso. boo fi amee doom nag jël nga avocat mooy wax ba mu génnee la wala mu wax ba dugal la. kon nag layee bu jeeg bu doom yi màggee atte leen foofu la feeje moo tax sëy du caaxaan bu ñaari way dencante yi war nañ am lu ñuy denc ku ci ne sa moroom loo ko xamal ci lu ñaaw denc ko boo amee lu la metti dama wax ni foo nekk ak sa soxna ba deux heures du matin trois heures du matin lépp loo xamante ni bii naqare woon na loolu la war a jëf war nga koo mën a jéggal. te xam ne jigéen ñi bari nañ lool te tëddoo kenn ku dul moom. la ilaha mhm. boo nekkee sa boroom kër nga tëdd ak moom ba trois heures du matin lépp lu la naqari woon waroon nga ko mën a jéggal te xam ne demoo fenn te diwoo fenn fu dul ci ginnaawam boo ko lambee mu daj la ba la lambee daj la kon kooku war ngeen a suturaalante ba ku ne xam ni ñaar ñii ñu ngi sëy jabar ju baax yombul doom ju baax yombul. néegu ndey mbaa néegu baay bu juboo yombul kon ku ko yàlla seddee war ngaa am lenn loo xam ne war nga koo sedd lu dul dóor mbaa xas mbaa saaga mbaa wuññi sutura sëy nag fa mu newoon ma nga fa de mosu faa jóg jóg déedéet sëy ma fa mu newoon ma nga nga fa mosu jóg di ñaanal soxna Kunta Mbàkke moom sëñ Fallu dama koo mas a fekk këram ñuy waxtaan ma ñëw fekk ko muy tuur xéewal ma ne ko soxna si yaa ngi yaa ngi tuur xéewal di mun ma Abdou Aziz damaa dégg jigéen ju ñu may fukki million mun ma bi suñ Fall di jóge màkk la boole fasu naaru góor ak alal lu bari jox ma sëñ Assane Fall bàyyib góor ñu gis ni jigéen ñi léegi koo ci joxul ay million jalal ko ko rek mu sinap def ay affaire boo maytul sëy ba sax léegi léegi ni jigéen ñi dafa mel ni xaalis la ñuy sëyee waaw Aziz euh, kuy xëy kuy sëyee xaalis boobu xaalis dalaa dab waaye. xaalis ni muy dabe. Eh, xaalis ni muy dabe mooy xaalis ni muy dabe mooy eh, nga dem ba am boroom kër eh, mu am xaalis parce que tamit lu lu lu lu feeñ ci sëy rek nuyoo na ci ngoro sama waajur wu góor yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko góor gu baax la woon ñu koy wax alaaji ngañ ñang moom daraan wax mu ne. mooy papay Zal. mooy papay Zal ñang mhm. <laughs> waaw di papay Bekaay ñang di papay As Baba. Mhm. macha allah yar ay njabootam daraan wax naan euh, doom yaral ba bu ëllëgee boo fa jógee fu mu dem mën fa toog mu ne waaye jabar yàqal ba bu ëllëgee boo fa jógee kenn du la mën a remplacer. moom noonu la ñu yaree woon. kon d' accord nga ci millions yi ñuy jël di ko jal xale yu jigéen ñi di sinap di def yooyu d' accord nga ci yow. ah loolu euh, xëy na dafa tombee xale yi mais ñun man d' accord ma ci parce que xaalis du sëy xaalis du sëy euh, sama waajur da moom li maam El Hadji Malick daan maye moom la daan maye vingt et mille quatre cent daawu ko paase dala naan indil vingt et un cent ma may la jabar mais na da ngay yore. sama doom kenn du ko sonal sama waajur wu góor bu ñëwee kër goroom fekk amul meuble mu wàccee la meuble sama waajur wu góor bu doomam euh, euh, ni ko euh, dund walla dara mu wàcceel la ceeb wàcceel la yëpp ni la tëyal ma sama doom mais nag doo dóor doo xas moom doomam kenn du ko dóor kenn du ko xas léegi na yow nga gis loolu sa waajur doon dundee loolu sa waajur doon def même boo ko gisatul yar na la yar goo xamante ne dara du fënk dara du fëkk sa bët te yow loolu may wax war nga cee mën a xam dara waa moo tax nee naa daal man damaa defe ne ci ci éducation yi la man chaque jour ma ne suñu waajur yi ñoom ñoo ñu dàq yar ñun ñun mënuñu yar. mais mais mais xale yi léegi ñu gis ni. Mhm. première chose bi dañuy bëgg nga may leen ay millions. ñaareel ba dañuy bëgg nga yóbbu leen ci appartement bu baax. Mhm. ñetteel ba dinañ bëgg nga jënd leen voiture jigéen nit ki mën na koo may lu ne mais dañuy gis ni léeg-léeg ñu defal la ko sëy ba sax du am weer. waaw foofu li ma fay dellu si mooy man dama contre jigéen buy euh, laaj laaj bu bëri ndax li tax ma contre ko mooy euh, góor baax na jigéen baax na jigéen da ngay takk sa sër. parce que gis nga góor tànk yaa ngi koy laaj. Mhm. sama mag bu jigéen chaque jour loolu la may wax. Mhm. ma di ko nuyu au passage muy njalu ñang mhm. euh, danaan góor tànk yaa ngi koy laaj. werante di am. mu ne waaye boo takkee sa sër liggéey su la joxee nga defal sa bopp bu la joxul nga defal sa bopp nee na werante du am te bu boobaa yow di nga toog ci sa ngor. di nga toog ci sa ngor ba nga xamante ne jigéen day dimbali sax jëkkëram. jigéen day dimbali sax jëkkëram mën nga jënd sa xar bu ndaw teg ko ci sa kër ba tabaski di ñëw tabaski jot nga tabaskee ko yaag sa borom kër ma sàmba du la xamal ma demba du la xamal loolu yëpp sutura la mais nga jël lépp wékk ko ci euh, ci benn nit ah la mu mën rek la cay def bu yàggee mu jéppi la sama waajur bu jigéen danaan wax naan euh, gémmiñu jox ma day xeeñ leneen mm-hmm. waaw moo tax jox ma jox ma ndeysaan daf ma daan wax ni ma soo demee ba àdduna njett la mu ne ma demal daan sa doole mu ne boo daanee sa doole di nga faj sa soxla te doo laaj kenn ñun lool lañ ñu yaree. ñu gis ni euh, mhm. buur géwël euh, da doo laaj kenn yéen mhm. am na ci ay góor ñu bari ñoo xamee mhm. wekki seen mbubb sañse bari tiitar jaagar jaagar yi waaye su événement yi jotee ñu daw seen i responsabilité te nag amaana léeg-léeg ñu am dara jaay jomba ñaaw ci bi biti dañu gis ni góor ñu bari ñoo xam ne bu ñu demee ba miin seen seen seeni soxna rek. Mhm. dañuy bàyyeeku. waaw muy Abdou Aziz xam nga wax naa la ko sànq ci biiru wax. Mhm. fan la nit du xeeb nobel. Mhm. xeeb nobel mooy indi loolu. danga wax sànq ci biiru wax ni xale yi nga xamante ni bii dañ leen di dalal ay millions ñu estati def si sinap. dugal ko foofu euh, ndax loolu war naa mën a ne wala warul mën a nekk. xam nga ki nga xamante bii. amul salaire fukki junni dajale ba am deux millions may ko jabaram mu ñëw ci biir kër gi ñu def ñetti fan mënu koo jox dépense moo indi problème. Mm-hmm. moo indi problème bi parce que yow bu fekkee ni yow ki nga may deux millions wóor na ni la mënoo koo jox bëccëg dépense trois mille francs am. Mm-hmm. bu yàggee coow dig ñi nga xam ni nag da nga ñuy sollu ba rafet dugg woote jomm ñaaw dem kër. wàcc seen i njaboot ak seeni i jabar ñu nekk ci tumuranke ak mhm. yow nga fay lekk ginaar ak yooyu mhm. du fulla du fayda du jom mhm. ku ko def doo nitu dara ndax kile muñal uuf sa njaboot gee mel ni su ma soxna see sama jeeg bi Seydina Muhammad mais mu uuf nga xam ni bii tabarkàlla ndeyam bi muy wàcc liggéey suma ñaareel dafa ni balaa maa dee dama koy may sa awa bi ndax moo gën ci ñi ma gis moom laa koy may bi mu laata dee la jëkkati doom may ko kon kooku xam na ni am na lu mu gis ci moom ma koy nuyu bu baax ana buub sama sang boobu di sama soxna ko ziar bu baax a baax a baax ak waa mm-hmm. Ndiassane ak waa Tiawan ñëpp mm-hmm. ak waa Mboore ak waa Jinge yi gis nga nit day def loo xamante ni bi ku ko dégg am ci mbégte am ci kontaante mm-hmm. gis nga mag ni dañ daan dañ daan dañ daan ut woy dañ daan ut woy wu ñu wut mooy Abdou Aziz kat sama nawla la mm. yëkkati doomam may ma ko war naa koo mën a téye téye goo xam ne fu ma dajeek Abdou Aziz du ma fu ma dajeeg Abdou Aziz war na ma ne bu ma amaatoon beneen de dolli la ko. Mhm. waaye ak maa li ma maye sama doom ji diw gàcce gënu koo rëy nit ko jur doomam fekke woo yëgoo tinoo muy yar ko ci faratas yàlla ak sunnas Muhammad dugal ko fa mu ko war dugal yar ko bu mu màgg yëkkati nit ak ay noppam may la ko. Mhm. nga yóbbu sa biir kër di ko toroxal doo nit. doo nit. ma wax ni nag ñetti neexu ñëw seqal teraanga. muy ñaan muy baadool ak dof ak ku iñaan. dëgg la. ku iñaan nu muy def. gis nga ku iñaan loo mën a moom ak loo ko mën a defal ci xeetu teraanga. Mhm. xam nga yàlla du bind xar kanam def teg leer xotti xol dugal ci ki mhm. loolu mënta ne. bu la yàlla booleeg doomu aadama bu iñaan loo ko defal ci teraanga mu ne far force la sañu koo bañ. baadool la. d'accord yooyu. la xamul teraanga. Mhm. xam nga li tax xamul teraanga. da ko dul def te ku ko nar def mu xañ la ko mhm. moo tax du def teraanga te xamu ko te loo war a def ci teraanga bu ko baadoo la yëgee xañ ko ki nga ko bëgg a defal xamul teraanga mhm. te du ko def du ko deflu dof nag matul jëkkër matul jabar matul xarit matul nawle matul nawle mhm. du sañse xel ma du teey te du waccu ndax xamul waaw ci laay jaare bàjjan dafa mel ni bu njëkk da nga doon gis koo xam ni. Mhm. day yabal doomam muy sëyi mais bagage sax boo moytul moo jën jënd. Mhm. wala bu demee ba doomam toog léegi-léegi mu jël ay bagage ko yóbbul di nemmeeku doomam mais léegi dañoo gis ni euh, goro yi léegi dañuy xool sax nu nu doom coppatee. am ana jëkkër sax jëkkëru doom. Mhm. amul doole. mais gis ne goro yi léegi lu seen doom yor ñu coppate ko yóbbu du ñu dooleel seen doom du kilo ceeb. Mm-hmm. du wax ju neex. Mm-hmm. du yedd du dara. Mm-hmm. loolu rafetlu nga ko. non loolu rafetlu ma ko. mooy ni ko comme euh, sama waa ji waxee rek. dama bëgg na nga wax ak jigéen dafa mel ni dafa da xale yi léegi. moo bëgg nga uh-huh. jàkkaarloo xale yi wax ak ñoom ma ko mooy comme ni mu ko waxee rek. sànq daf ko wax mu ne. Euh, baadoo la euh, borom sëñ Mansour borom daara ji moo doon wax naan baadoo la mooy. loo ko defal mu ne daa koo yayoo. da nga ko war a def. wala force la. te fekk du force danga nga koo defar ndax dangaa xam teraanga waaye nee nañ fi ndox doon taa Aziz ba tey boo demee tepp fekk fa tepp-tepp jigéen ñi daan sëy ci sutura di toog ci sutura di suturaal seeni borom kër ma sàmb xamalu leen ma demba xamalu leen ba tey ñu ngi toog waa ba tey ñu ngi toog ci seen kër yi ak seen ngoor kenn xamalu leen dara ndax nag dinaa la xamal dara de. Mhm. boo suturaalee sa borom kër yàlla suturaal la. mais xale yi suturaale lu seen borom kër. moo tax yàlla du leen suturaal ndaxte yow sëy bu dem ba ci internet neexatul. dugg ci internet bi. waaw wax lépp. Mhm. dugg ci internet bi wax li. Mhm. maanaam mais nag bàjjan bu demee ba nga baal ma ci baat bi ba fer fer. maanaam luy ne ci ndigg ñu ni ko ñu ni ko bàcc cuuraay ñu koy wane mhm. ay xeet xeet xeet yoo xam ne ci ci secret néeg la bokk mhm. ñu koy wili ci néeg isa loolu rafet na ah loolu loolu kay ku ne xam na ne rafetul mooy li ma la wax rek loo gis rek ca yar ba la am na ñoo xamante ne ak seen fukki xel ak juróom-ñaar xalaatuñ ko ndax fa ñu tënku moo tax jomb nañ yenn yi fa ñu tënku moo tax xalaatuñu sax loolu suñu gisee kuy def loolu sax dañuy tiit waa ndax euh, jigéen ju baax dëgg dëgg dëgg dëgg waroo mën a am jot sax ah bay mën a dem di def leneen ndax yow bu dee yow xëy nga dem uti loo am. boo ñëwee di nga gérer sa kër soo paree di nga jàpp julli toog noppalu. léegi yow ban jot ngay am pour mën a dem pour mën a weer sa bopp wala nga weer sa borom kër. am na ci ñoo xam ne bu ñu xëyee ndeysaan. Mm-hmm. Mm-hmm. maa ngi nuyu waa yaraax ñu nekk ci kee bi. Mm-hmm. ak di nuyu waa Pikine. ñu ah, ngi yanu seen dàmba jën mm-hmm. di xool nu ñu amee mm-hmm. six heures du matin la ni yeewu mm-hmm. mën a dajeeg lu ne ndax rek ñu am kilo ceeb ak ñaari yaboy wala coof dem tàllal ko seen doom xo ñooñu am na leneen lu ñu tal mais am na ñoo xam ne yàlla dafa dogal ñu mën a gan yor mais fu ñu toll ñoo ngi jaayu ak a yàq Uh, loolu li ma la ci wax Aziz dama ciy profité di la wax naan jigéen bu ci nekk boo nekkee ci sa gox wala nekk sa fenn Euh, jéemal euh, nga am benn taxawaay bi taxawaay bi ngay am ma profité ci wax ci man mii di wax ak yow dama am groupement boo xamante ne ëllëgay dàq bu sëñ Mansour Sy Djamil la chaque mercredi ñun dañuy cotiser 500 cinq 500 cinq 500 yooyu dinañ ci permettre jigéen boo xamante ne nii. feebar jigéen boo xamante ni sa jëkkër amul doolay jënd saaku ceeb. doo dem. di peese dañu lay jëndal saaku ceeb jox la may profito di nuyu Augustine Ndour sama trésorière. Mm-hmm. ah dañuy dem jënd saaku ceeb jox la bu ko defee la ngay détaillé bu mekk di jotee. Mm-hmm. soo indiwaat sa cinq 500 francs mm-hmm. nga fay ndànk ba mu mat bu dee diwlin noonu bu dee weeru koor day ñëw ñu jënd tàndarma bu dee euh, korite day ñëw ñu jënd soble lépp ci sutura suñu biir. ba nga xamante ni dëgg la sa jëkkër amul njëgu saaku ceeb mais yow teg nga saaku ceeb sa kër. loolu yëpp ci sutura la bokk waa ku ci nekk fa nga nekk jéemal nga xool ni ngay organiser woo ah ba nga xamante ne nii yow di nga toog ci sa sutura ànd ak jigéen ña ca koñ ba ah parce que xam nga 500 soo ko waxee tuuti na waaye mi ngi faj loo xamante ne ñoom ñu ngi may dégg bu baax a baax. mi ngi faj loo xamante ne ni macha allah ndax sa jëkkër bu xëyee tey jii bëgg la bàyyi loo jëndee kilo ceeb. Hmm? Euh, fekk yow teg nga sa saaku ceeb nga jël sa njëgu kilo ceeb denc bu ëllëgee noonu bu ginnaaw ëllëgee noonu loolu yëpp nag Aziz loolu yëpp nag ñu ne doolay jën ndox waaye doolay saxaar raay maa ngi koy gërëmee Serigne Mansour si Djamil bu baax yàlla na fi yàgg tëwél ma ko koy gërëmee parce que nee nan kala tax a gën koo waratoon a gën mhm. sab sang la man kooku sama sang la te sëñ Mansour mi ngi ko Serigne Ali jërëjëf ak Mëgëy Seck. Mëgëy <laughs> allah ñu ngi lay ziar tamit. Mëgëy euh, maa ngi lay nuyu bu baax Mëgëy di la ziar di ziar madame Seck. macha euh, di nuyu waa directoire ba yëpp nag bàyyiwuma kenn ñoom tonton du Seck na fi ñaax Xadi macha allah. mu mel ni léegi da war a sëy ak nit rek wàcc bàjjet eggal yi. voilà léegi Aziz euh, mu am taxawaay boo xamante ni ñun jigéen ñi nekk foofu ah, Euh, mi ngi ñuy jàppale jàppale boo xamante ni ñu ngi am suñu dëwlin ñi ngi am suñu ceeb ñi ngi am suñu tàndarma ñi ngi am suñuy xaalis bu événement jotee tabaski nii ñu fexe. <laughs> ni ñuy ni di sumb ceeb bi dañu koy. ni ñuy lebalantee suñu xaalis ba nga xamante ni du ñu xam suñu jëkkër yor na wala suñu jëkkër yorul. kon du ñu mën lu dul di ko wax si Malick yaa ngi fi yàlla na nga fi yàgg te wér lool. jërëjëf waaw. Ah, mu mel ni dañu gis ni léegi góor day seeg mhm. jigéen. jigéen ji nekk baax waaye yéen da ngeen di defee ne foo leen toll rek war ngeen koo saaga. Mhm. da nga am nday mu am nday. Mhm. waaye yow saaga man ngeen a yem ci biir néeg mais da nga dem ba génn saaga yi ci biti sutura sax amu ci. Mhm. te foo ay doomam toogee ngeen fa ngeen di daggale. dina dem ci ba taaw bi sax am na loo xam ne du ko muñ day dalay xool xool boo xam ne. daanaka di nga xam lim la wax lu tax góor ñi di def loolu. góor gu def loolu rek yaa tas sa njaboot. góor gu saaga soxnaam wala ay njabootam toog nga saaga leen yaa tas sa njaboot ndax am na rànkiñee boo xam ne indi nga ko sa digganteeg sa njaboot te xamoo ko mm-hmm. waaye comme ni ko soxna si waxee mm-hmm. Euh, muy lu am solo ci sutura loolu ngeen di def. mais dama bëgg nga taxaw foofu ci saaga yi bu ci rocceeku. ni ngeen koy def dafa bari yéen góor waaw moo tax di xaste di jaay kii. doo joxe dépasse bu mat doo kii bul daw de. Abdou Aziz yéen nag da ngeen a sikk torop. sama concert fi ma woo rek laa foofu dama bëgg nga taxaw fi ma woo rek laa bëgg nga laa bëgg a ñëw. fa daw ma woo naa fa wuy si de. waaw wuy si ma dinaa fa ñëw fu baax a baax a baax. góor gu taxaw. Mhm. njabootam toog soxnaam toog nga dagg ko saaga ndey. Mhm. yaa tas sa njaboot tas nga kër gi bu yàgg ndax li tax nga tas njaboot gi mooy xëy na ñëpp bokkuñu yem waaye am na ci koo xamante ni bii xol ba ngaa ñëw bu dul woon bu dul woon cëru baay bi am na loo xamante ni kon musiba am de. Mhm. cëru baay bi kon am na loo xam ni kon musiba am. Mhm. soxna si waroo ko mën a saaga ci benn boor. ndax bañ la koy may ay saaga mayewuñu la ko. Mhm. ñu la ko may. ci bànneex ak neexal rek képp. li nga indi sax boo maytul matul. te ñun dañuy bëri di def ni bu ñu yewee di la seet si di la labat si jox la ñaari junni ñi la jëndal eh, ñaari bitéelu lu ak warga ak suukar nga indi weccat bi ñu la garde ko ñaari lu bari loolu la ñuy def mm-hmm. eh, ah, bu ñu dellu si jox la junni. Mm-hmm. ñu la jëndal fii warga suukar wala nangam ak nangam mu des weccat ñu la garde ko. Mm-hmm. buñ la ko mayee ba mu ñëw ci kër gi ñaari fan ñetti fan bu ne rek yow nga ne ko puusale li nga bar looy dend torop <laughs> heure la ngi commencé ñëw de. Mhm. yow rek laay déglu. boo génnee boo génnee teg tànk bi nu ah waaye mi daay foo jëm wala diw foo jëm nga ne ko li may laaj fu ma jëm dafa bari. Mhm. fàtte nga labat ga. fàtte nga labat ga fàtte nga waxtaan wa fàtte nga neexal ba. te bi ngay ñëw da yoot di neexal. ngay ñëw da ngaa yoot yoot goo xamante ni. yow laa bëgg. même waajuru xale bi muy góor ku jigéen. gars dañoo doy waar de parce que dañuy ñëw sax ci biir kër gi. Ah, yoot googu la doon benn façon melokaan boo xamante ni bii du ñu julli du ñu wóor du ñu jàpp bu ñëwee satala la ñuy njëkk laaj. Mhm. jàpp tàllal si ñaare bi julli góor gi génne ni ah kii xale bi ko am diine la. jullit la fekk nëbb na jikko ji de. Mhm. xamoo jikko du jikko ko. lu jikko. <laughs> jikko nag moom ñaawa yem. Hmm? du sax fenn. déedéet gis nga jikko. moom yam gis nga boo jëlee fanweeri paanu ndax sangoo ko ci biir wanag bi génn solu ba rafet xeeñ parfum poudre yaasu def la nga war a def yëpp ñaaw ak lay xaar ci buntu kër gi booy génn mu ni ñàpp sa kanam gi ni ma doon fi bàyyi foo jëm yóbbaale ma la jikkoog moom borom noonu lañ mel de duñ tabax rek tabax rek jikko di jikko ko nga ñëw ci kër gi di labar xale bu jigéen bi mm-hmm. koo dajal jox ko ñaari loxo te nag li gën a doy waar mooy góor goo xamante dafa am jëmm ak daraja te silwise te lu mu wax du dëkk day tasum réew aka bari am jëmm am daraja te silwise lool te loo wax du dëgg aka bari ci góor yi tey yi duñ fi jeex ñëw ci kër gi may xale bi ñaari junni may yaayam ñetti junni may baayam ñeenti junni te yow wóor na leen li bu ko ñëwee ci sa biir kër doo ko jox junni bu mu dépassé retourné nag boole ko ay saaga ak ay dóor waaye dof mënta weesu lii waaye ak baadoo ak teguñu ko fenn ak baadoo la teguñu ko fenn. gis nga nit lépp loo xamante ni bii yaa ngi koy def te mënoo ko ñooy seetaan yi njëkk a dox ma yow sa jëm de waaye looy def loo mënul lu ne barki Seydina Muhammad ña lay seetaan yi njëkk a sonn mhm. nit dangay def loo mën. boo tëddee nelaw loo mën. Uh-huh. heure bu la neexee wëlbatiku maa nga biddanti uh-huh. waaye sem yaa ngi def loo mënul ci sa biir néegu sëy wala ca biir labat gi ngay labat barki Serigne Bamba kuñ la may du yàgg ak moom uh-huh. parce que li nga wax du dëgg li ngay def du dëgg li nga mënoo ko nit nag bu dee def lu mu mënul moo sàcc buy yoote yem xam nga ku ne bëgg nga ku ko yëg Abdou waaw ku ne bëgg nga ku ko yëg kenn rek a bëggul ko yëg bëggul ku ko yëg mu def sàcc boo nee kooku rek mu daw def lu mënul daa def lu mënul bàjjan ba tax na damay gis ni à chaque fois jamono ji ñu toll ni net sëy taxaw biir tribunal dafa bari am nag nit ak moom njaboot jekki-jekki coow am rek nga yóbbu ko tribunal is jigéen war naa def loolu ak njaboot gi nu am nga jekki jël sa borom kër yóbbu tribunal ah borom kër de moom boo ko xasee ba yóbbu tribunal moom hmm. man yaakaar naa ni foofu dara amatu fa tribunal nga jël yóbbu fa sa borom kër kooku moom euh, boo nee jullit nga walla nga ni yow euh, euh, même boo doonee leneen sax dafa rafetul ci dara ndax bu dul dara sax am ngeen njaboot. yow kan nga yóbbu sa baayu doom. Ah. léegi yow bu ëllëgee yàgg yàgg sa doom dina ko dégg léegi yow lan ngay wax sa doom te doom nawle la lan ngay wax sa doom te sa doom nawle la mooy chaque jour rek li may delloo si rek Aziz mooy yar yar ak diine gis nga soxna soo koy ut bu ci soxla taar bu ci soxla xeet bu ci soxla leneen xam nga loo ci soxla na am diine parce que bu amee diine rek ak diine bu mu mënti doon rek ah bu amee diine rek dina toog sëy waaw amee diine rek di ak yar rek dina toog sëy euh, moo tax jël sa borom kër moom yóbbu tribunal ah loolu moom man man rafetlu ma ko wax dëgg yàlla. parce que bàjjen bu njëkk da doon mhm. bëgg soxna sax. Mhm. ñu demal seeti sa doom yi bàjjen diw. Mhm. boo demee nga waxtaan ak moom. su waxtaanee nga jaar sa nijaay. mais dañu gis ni léegi bàjjen yi yabaletun. nijaay yi yabaletun baay yabaletun. loolu fan lañ ko teg. Ah, boo gisee loolu Aziz bu njëkk ba yow boo daan dem sëyi dangay ngay sëyi sa kër goro boo sëyi sa kër goro. seen euh, nijaayu xale ba dina fa ne euh, bàjjenu xale ba dina fa ne yow dinga yar bàjjen dina yar nijaare yi dina yar léegi nag xale yi bu ñuy sëyi dañuy sëyi ci appartement. Ah, nag bëgg naa nga taxaw bu baax. <laughs> dañuy sëyi ci appartement mais boo sëyee kër goro nga fekk fa rakku jëkkër bu góor fekk fa rakku jëkkër bu jigéen fekk fa nijaay fekk fa ku nekk. Hmm. loolu loolu ngay dund noonu. dina permettre sa njaboot ba bu ëllëgee fu mu dem hmm, du ko déranger mais xale yi léegi booy sëy sax dañ naan ban appartement nga war a dem wala tee a dem uti appartement pourtant tarbiyu sa goro goro mooy yaay goro mooy yaay njëkke mooy sœur rakku jëkkër bu góor mooy frère famille la rek da nga jóge ci famille bee dem ci famille bii te sëy yàlla mi ngi koy bind ci aras sëy kenn kenn jógul ni kii laay sëyal yàlla mooy bind mu ne kii ngay sëyal mu boole la moom nga sëy ak moom Aziz dafa am sama jabaru càmmeñ bu baax boo xamante ne bu baax bu muñ boo xamante ne moom euh, ñëpp a muñ ñëpp a baax mais dafa nekk référence ma bokk ak moom benn kër sama kër yaay mu sëy fa sëy bu rafet macha allah ñu koy jox wax nday jaxu fay maa ngi lay nuyu bu baax di la ziyaar euh, parce que euh, jabaru càmmeñ yëpp a baax mais da ci am ñoo xamante ne ay référence lañ ñoo xamante ni dañoo mel ni yaay euh, parce que tamit gis nga wax sa mbaaxu moroom du wàññi ci sa mbaax dara léegi jeeg nekk ci kër sax ñun la na nga fexe ba nduróog jeeg be merci léegi yow bu ñuy wax mbaaxu kooku yow góorgóorlu nga copier ci kooku pour mel ni moom mais bu ci gis sa bopp da ngay jéem a copier wu pour mel ni kooku euh, ndaxte sànq rek wax naa ko nag euh, Aziz man toujours kooku samay wax moom laay mottaloo ndaxte ci ay kàddoom ci laay def sama kii moo tax chaque jour ci ay waxam laay laay jëfandiku di di dund li may dund muy sama sang bi ba tey rek sëñ Mansour si Djamil mm. dafa naan euh, euh, ku am cër moo mën a joxe cër mu ne wante ku amul cër du joxe cër mu ne boroom cër mooy joxe cër dafa lay wax ay mots yoo xamante ne boo ko tegee àdduna sa àdduna di nga ci defaru sa alaaxira di ci defaru ndax li nga ci defaru da lay ragalloo yàlla te bu la ragalloo yàlla rek nga toog ci sa néegu sëy doo gis dara lu la comme par exemple euh, euh, sama goro man sama xarit la benn jour dafa ne ma soxna um dafa ne ma ummi ma ne kon naam mu ne ma soo xoolee ci man rek di nga toog sëy parce que lan ngay lan ngay toog sëy mu ne ma lu ñëw rek xamal ni loolu sedd na am na leneen lu xam nga mag ñi dañoo mën a sëy oh, am na leneen luy ñëw mu ne ma leneen liy ñëw moo gën a pur mu ne ma lu la lu la arrivé rek nee na loolu sedd na nee na leneen lay ñëw mooy gën a pur séentul leneen man moo tax lu ñëw rek man man loolu sedd na. warkal la waaw lu ñëw rek loolu. sedd na sant la ñu gis ni yéen. Mm-hmm. léeg-léeg da ngay gis góor goo xam ne jigéen. da mm-hmm. koy taajal xamul bàyyi la mu bàyyi dépasse ca kër ga. Mm-hmm. xamul lam fa bàyyi man parce que marché dafa metti mhm. léeg-léeg benn junni ngay def ngay joxe rek defe ne war nga cee am ginaar <laughs> mm. am ci boisson uh-huh. am ci soow am ci lu ne mhm. ba pare bu ñu la taajalee nga da ngay ànd ak say xarit de nga ne foofu di def ay façon dox góor ñi di def loolu uh-huh. waaw Abdou Aziz góor daal bu dee dafa matadi daal lu ne mën na koo def ci wàllug matadi mhm. bu dee daa matadi bu dee daa matadi ñi ci mata di daa mel ni daa bari de. waaw bari de nag ndax toujours tol gi day xaw a ndax nit ñi moo tax toujours méttelu ndof gi day am. Mhm. waaw na marché ba méttee man de Abdou Aziz àdduna laay wax ñëpp ak may dégg te li may wax biir na dëkk ba ma dëkk mu yeeraax. Mhm. man maay nduggi. yaay nduggi barki Seydina Muhammad maay nduggi may dem marché poisson jënd jën ñu daggante ko. macha allah itam seeraas jënd ndawal li may wax nii yàlla rek laa ko seede du télé tax ma koy wax de. Mhm. sama waa koñ xam nañ loolu sama soxna xam na loolu ci man ak samay njaboot. damay nduggi man damay dem ba caaro yi nduggi gàddu sama saak jël teer bi ñëw mhm. jaar marché poisson def lépp lu ñu war a def ma ñëw indi ko ci sama biir kër jox ko sama waa kër li may wax ñoom xam nañ ci dara sama waa koñ xam nañ ci dara mhm. bu dul dëgg su ma fa jaaree damay teggi waaye dama fay jaar ci diggu mbedd mi xam ne li ma wax dëgg la. Mm-hmm. nit boo ko bëggee da nga koy dimbali. koo tanete di ko di ko dimbali loo ko sant mu def ko. Mm-hmm. waaye koo tanete doo ko dimbali loo ko sant bu ko neexee bañ. pee ci man. Mm-hmm. koo tane da koy dimbali. loolu mooy dëgg. loolu mooy yoon. te sangu boobu nag maa ngi koy ziar bu baax waaye di ziar ki nga xamante ni mooy Sidi Ahmed si. Ahmed sama xarit. di sama wóllëre. di sama lépp nga xamante ni bii wax dëgg yàlla fu mu jëm yóbbu ma lu mu xam wax ma ko muy Sidi Ahmed mu sëñ Bay si Mansour mu Mansour bal xaw mi mm. bëgg ma lool waaye sànq damay ñëw ci kii li mu doon wax sànq Abdou Aziz muy sutura bi mu doon wax ci biir ay dëkkandoom ak mm-hmm. ay xaritam ak ay nekkaalam mm-hmm. ñun dañuy def lu mel noonu ndax ñun man dama di porte parole taxawu askan wi GIE taxawu askan wi mm-hmm. ca yaraax suñu président tudd sëriñ Fallou Fall ñu boot lu mat quarante personnes. Mhm. ak trésorier bi Babacar ak Alioune Badara jonn ak Babacar ak ki nga xam ne mooy Souleymane ak Kéemu fàtte ak ñëpp ñu ñu àndal gis nga ñun ñeent fukki dërëm lañ daan natt par dimanche deux cent francs li indi loolu nag mooy dañoo toog ci sama palaas am ku ñëw déema comme ñun ay géwal lañu lu baax rek lañu war di def moom lañu war di wax. Mhm. diw de sonn na lool mu ngi mm. yuuxu yuuxu yu metti ma ne haa ñu naa ñama toogal ma dee leen ko ñu ne ma demal xool ko ma ñëw xool ko mu sonn lool boobu waxu suuf ji waxu suuf si nga dégg waaw mm-hmm. ma dem xool ko mu sonn lool ma ne gars yi yow loo yor Abdou Aziz mu ne ma man yor naa junni de yow loo yor mu ne ma yor naa ñaari junni de yow loo yor mu ne ma yor naa ñaar téeméer ma dajale ko muy trente sept mille cinq cent mm-hmm. ma fëgg nit ni ko ah ñun lu ñu am ku fi feebar dañ koo bëgg a yóbbu mu ne oto baa ngi noonu soo leen amee safar yóbbu leen boo amul safar ma yóbbu leen mm-hmm. cey billaahi cey rax cey rax mm-hmm. ma yenn ko yóbbu ko hôpital ñu defal ko lu ñu ko war a defal lépp dëndal ko ordonnance ak lépp ma ñëw indi ko jébbal ko waa këram baa sama frère bu baax bi bokk na ci Gora Mbaye Gora Mbaye a bokk na ci sama jarbaat sama lépp sama xarit sama jarbaat la sama doom la Gora Mbaye bàyyam mooy sama jarbaatu papa nit ku baax ah loolu sax am valeur ku am valeur ku bëgg boppam ànd ak doom baayam doomi ndeyam suñ Ndiaye Fall. ngeen fëgg waa ji. da nga bu baax ak waa mbaar mu yëpp. mu ñëw jël ñu ñu yóbbu hôpital ñu faj waa lañu ko war a faj la ñu war a def yëpp ñu def ko ma dellusiwaat ba leen li tax ñun ñii mënuñoo def dimanche bu ne deux cent lu mel nii bu amatee ñu jóg ci. Mhm. cey. ñu ne ah loolu de xalaat la ñu def bëccëg dimanche deux cent ñuy def loolu di def loolu ba léegi am benn fond boo xamante ni bii dañuy xool kër gu mel ni suñu kër. sant na Fall lool ñu bàyyi ba guddi ñu dugal fa cinquante kilos ceeb ak vingt litres diwlin. macha allah billaahi mhm. ànd ak président Fallou Fall ànd ak Aline Badara ak Grand Mbaye Diouf ak Kéemu Fati ak ki nga xamante ni bii moom mooy euh, trésorier bi Souleymane Ndour ñu ànd def délégation ndànk ci sutura lépp ci sutura indil la ko mhm. bu fekkee sa courant dafa coupé bu dee cent la danañ laaj facture bi ñun danañ joxe fukki junni hmm. bu dee ordonnance la bu dee cinquante mille la ñun danañ joxe lu mu baat gàtt gàtt juróomi junni dimbalee la ko fu sa jabar ne nag fu mu dem fii ba Casamance ñun danañ ut carburant def ko ci oto jëli ko indil la ko mhm. ci sutura ci sutura noonu la bu kër gi yëngoo mhm. danañ bàyyi ba mu wóor nañ ñun war nañu mën a dox ndànk ñëw ca biir kër ga waxtaan fa delloo ko waa kër gi delloo bokk yi ba ñu àndaat ci entente ci sutura. Mhm. sutura li mu ëmb daa bari. li mu ëmb. Mhm. dafa bari. Mhm. kon nit bu fekkee ni yàlla daf la def nga nekk ci dëkk fexeel ba ñëpp ñemeñ la waaye bu la kenn yàpp. bàjjan foofu laa jaare di wax ni lu tax góor léeg-léeg day teg jigéen lu metti jël ko sa jabar ëmb. nangu woo jënd ordonnance. yaa ko teg li mu am. li mu mel. booleek di ko wax wax ju naqari. Mm-hmm. am na ci ñoo xam ni tamit seen seen jëkkër moo leen teg wax ju metti ba nu guwaat. Mm-hmm. te li gis nii ci jamono ji léegi dafa bari. Mm-hmm. jigéen ñi ñuy def loolu. yaay fan la ko góor ñi teg. ah xanaa ni ko sama waa ji waxee rek nee na matadi. nee na loolu góor gu matadi rek moo koy def ndax jigéen nga xamante ne moom la yàlla gën a fonk. jigéen rek la yàlla génneel saa dinaa la xamal dara de sëñ Aziz euh, jigéen ku ko teral yàlla teral la mais boo ko toroxalee rek yàlla toroxal la jigéen dañ koy teral jigéen dañ koy tëye jigéen dañ koy yiir dëgg la même boo yorul boole ci sa wax ju neex mm. ak sa maslaa mm-hmm. mu toog muñ parce que nag euh, jigéen ñi ay jàmbaar lañ de Aziz ay jàmbaar lañ boo duggee ci kër yi wala nga dugg euh, ci GIE yi wala ngay génn di xool di gis di nga xam ne jigéen ñi ay jàmbaar lañ. ñu ngi nas. walla wallaahi wallaahi jigéen ñi lu ne ñu ngi ci. lu ne lu ne lu ne lu ne ñu ngi ci dañ leen a war a jàppale. merci rawatina nga teg loolu jigéen. voilà léegi nag yow yow yaa war a jël sa euh, soxna nga yiir ko nga yiir ko nga yërëm ko jàppale ko. wallaahi xoolal rek jigéen ku la ko gën a yiir rek moo la gën a tedd. Mm-hmm. loolu moom ku ko ku ko xool sax euh, ku xool sax da nga koy gis. Mm-hmm. Euh, comme ni mu ko waxee sànq rek mm-hmm. Aziz mm-hmm. Euh, man dama nekk commune Wakhinane Nimzatt fa laa dëkk Géejawaay Racine Talla mooy sama maire mu nekk maire bu baax maire boo xamante ni dafay jàppale jigéen ñi di sutanee jigéen ñi man lu ci bëri su ma ko mënee euh, ci commune Wakhinane Nimzatt ci mennum Racine laa gis maire boo xamante ni chaque jour ma ne ko nit la lay teral nit da ngay euh, wax sa diggante ak yàlla parce que euh, sama sang bu baax bi sëñ Mansour Sy Djamil danaan moom rek ngay jëlaat man man moom rek. wallaahi moom rek laay topp topp ma keneen. si <laughs> man soo démb sama benn camarade parti dafa ni ma. Nafiña dafa ne ma umiña suba sëñ Mansour dina sap dina sap 2S de. <laughs> <laughs> ma ko man kooku rek laay topp. topp ba keneen heure bi nag daf ñoo xaw a dab. <laughs> Euh, waaye damay bàyyi boroom yaraax rek. Mhm. mu mu mu tàggatoo. la Abdou Aziz émission bi neex na. Mhm. Euh, wax dëgg yàlla xam naa ne ñi bëgg dugg ci biir bari na lool ligne bi ligne bee saturé ba. bëggante ah, ba saturé bi ne saturé mhm. parce que ñi war a dugg. Mhm. vraiment xam naa ne saturé bi moo tax. waaye ñëpp ñi bëgg a dugg ak ñëpp daal sant nañ leen gërëm nañ leen di sant waa Yarax bu baax a baax. ak sa jigéen bu baax bi ma boole leen xam ni nag nu ma mel Yarax la. fu ma jëm Yarax laay yóbbu lu ma am Yarax la. di sant bu baax Aram Mbaye. bu Euh, di présidente ba pare di def ay financement yu am solo. Mhm. Mhm. ba pare doon jigéenu Diagne Fada. Mhm. nga xam ne ndeyam ak suma ndey ñoo bokk ndey ak baay. kon kooku sama lépp la. nitu valeur bu baax a baax a baax. baax daal maa ngi sant bu baax di sant bu baax Adja Penda Tall. surtout Seydou Nourou Tall bi nga xamante ni bii euh, lépp lu góor di def rek tabarkal la mu ngi koy def. di dimbali doomu aadama yi di leen jàppale di ziar bu baax aji Mami Guèye suma euh, présidente ziar Sophie. ak Ousmane Diop ziar bu baax nag suma waa kër di jël nuyoo bi teg ko ci loxo seela Niang mu séddale ko waa kër gay yëpp yëpp ñu ngi sant yàlla di wax ni émission bi daal lépp loo xamante ni bii rafet na yàlla la te bëggoon mu baax mhm. bëggoon mu neex lépp loo xamante ni bi am na safaan ñu ngi koy jéggulu di xam ni nag suñu sago bu ñu sagoon ñëpp sañoon ñëpp kontaan mhm. di sant di sant borom kër gi bu baax di ko ñaanal gudd fan ak mhm. wér di sant waa El Hadj Ndiaye ah, ak Marème Ndiaye jaatu ah, Marème yàlla na yàlla defal leen jàmm wax dëgg yàlla tele bii moom la àdduna yi wër mhm. ndax li nga xamante ni bi moo réer adduna yëpp fii lay feeñee fii lañ koy wanee fii la leeree kon ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci sangu-sangu yi Seydina Muhammad di leen wax incha allah rabbi ba beneen yoon bu neexee yàlla jërëjëf Abdou Aziz kontaan nañ sama bàjjan sama goro <laughs> sama lépp di responsable bu mag moom it fee ci mhm. géejawaay mhm. di di l'homme de social euh, mi sëriñam bi muy tudd ma na may ñaari junni ma koy ma koy bañ a jël mu ni ma damaa bëgg nga bari est-ce que bëgg nga bari le lool loolu la ma def mhm. wax dëgg yàlla yàlla na yàlla def jàmm ba nu bari le ba ñëpp xaj ci nu bàyyi la nga tàggatoo sama bàjjan sama xarit nit ku baax di mhm. jéggulu nag ci heure bi ñu la yee ndax responsable nga mhm. xam naa ñuy bare lay xaar bàjjanu ndaag ñang mi nga xam ne moo gën ci man wallaay wallaay Aziz yow di la gërëm di la sant ndaxte nag da jël sama doom jooju nag te soppi woo ko njaago macha allah nga baax lool chaque jour damay gis ni ngay fowee ak moom da koy estati di def yëpp te nag euh, macha allah moom ñang baalo sëy rek lay def dina sëy ndax doomu sëykat la il faut mu sëy macha allah waajuram nag di zaal ñang nekk ku baax di sama frère man samay frère ñoo ma bëgg samay frère bu ma sëqatee sax ñu ne ma yaaram kàllaa ma ci profitoo nag ci ku spécial ci man koo xamante ni bu ma toogee fii ba jóg te tudduma ko dina jaaxal ñu bëri muy sama frère ma topp ci moom ñu koy wax Pam Ndiasse mu nekk pari Oh. Aziz Pape moo baax moo bëgg mbokk moo ma jàppale moo ma yërëm moo ma yiir taalibe Sóora Jamil bi kenn du moom di ko ñaanal gudd fan ak wér euh, li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko koy yàlla defal dafa ñaŋ mi jël doom tuddee ma mhm. macha allah ku lim doo juum te da nga dul matal te xam nga suñu famille nu mu toll. waaw daa kii yàlla na yàlla defal jàmm. mënu ma lim ñëpp daama tëx bàyyi seen bala moo gën dégg fukki barak ñaar. wallaay bi gën ci man laay wax de. dëgg la ñooñu baax. jàppale ma lool. Mhm. di gërëm nag kurambaay. wallaay waaw boro baax waaye kenn du jàll. genre doom la ma def defuma goro nit ku baax ak rakam ju baax jooju as baaba as baaba moom ma may jabar di ñaanal ñëpp jàmm di leen wax ne leen suba ci même di may nag émission bi tey ki nga xam ne mooy Chérif Diagne borom États-Unis Serigne Ndeye Gueye doomu Ndayu Mari Ndiaye mais Chérif yàlla na la suñu borom defal jàmm ndax yow ku ñëw Amérique nga teeru ko teral ko mhm. yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm suba ci même heure ci émission li ci àdduna ajaratu bella yow guddal fan rek te am jàmm ñëw toog ñu defaat lu baax di nuyu suma yaay maane di nuyu ki nga xam ne mooy ngaay di ñaanal ñëpp jàmm siidi yàlla na jàmm yàgg 2STV mooy télé bi jërëjëf